wa radiallahu taala an asxaaba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala xawla wala quwata illa billahi alali alazim ya himmata cheikh axduri lana bi hada almaxdari faltaatifi binadratin taati lana bidafari baad duxra alxadarat assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi nuyu jotaay bu tedd bi di sant yàlla tabaaraka wa taala mi nga xam ne moo ñu ko mayoon mayaat ñi ko waaye ñu ngi nuyu mbooleem ñi toog ci jotaay bi ak mbooleem ñi gis ak di ñu dégg ngi jiital ci nuyoo boobu suñu nijaay yi teew Cheikh Mouhamadul Bachir dégg nañu ay kàddoom léegi di ngay wax amin ci ay ñaanam yëpp di ko wax ne ko malaaka maa ngi lay wax ne wala kamis du zalik di nuyu suñ nijaay rakkam cheikh seydi mohamad al arabi ak suñuy mag yi teew cheikh aboubacar ibn cheikh xaaj abdoulaye cheikh ibrahim ibn cheikh alxaaji osman cheikh baay ibn cheikh mohamad al amin ustaas cheikh ahmed boucar al muarrix al baaxis bi cheikh bachir wax ci moom léegi wax yooyu nga xam ne ñun ñëpp ñu ngi ànd di ko dëggal di nuyu suñuy jarbaat suñu doom suñuy rakk Cheikh Moustapha Cissé imaam Mouhamad al Mishri nga xam ne sànq moo ñu ubbil ci jàng mi xasida bi di nuyu jamiya bi nga xam ne ñooy fitiyaanu sidq Cheikh Baye ak nijaayam ak i eh, doomi baayam ak magam ak rakkam ñoom ñëpp ak doomi bàjjanam yi di nuyu gan ñi nga xam ne ñi ngi jóge fu sori am na ñu jógee France toog ci suñ gannaaw dégguñ dégguñ olof te dañ doon wax ne jotaay bii rek lañuy ñuy xaar ñu jógee Amérique ñu ngi noonu maa ngi seen ajib ngi noonu ànd ak ñoom it moom ngaa dégg na olof waaye ganam yi mu ànd ak dégguñu olof loolu yëpp rek waaye barab bii ñu toog ñu ngi def tawassul ci nokki yu sell yi nga xam ne moom la Mawlaana Cheikh Ibrahim nokki ci barab yi yàlla nangul ñu suñ gàmmu nangul ñu suñ mboolee mu jëf te lépp lu ñu yàlla nangul ci jëf yi yàlla na ko def ci misaani Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ndax boole kuñ nangul du dara nu may ngir yàlla nangul la rek ñu ngi doon tànn xasida ci xasaa xasaidi bàyyi yim taggee yonentu bi sallallahu alayhi nga xam ne yépp nafsatu masdur la mu ngi mel ni rek xaaxtandikoy ku ku soj force mu génn loolu rek la wéyam ci yonentu bi sallallahu alayhi wa sallama la yoo xam ne nii yu dëggu la yoo xam ne li wéykat yi wala nuqaat yi di wax buñ tiimee wéy boo xam ne borom daf ko génnee te sonn ci bi mu koy génnee dañuy wax ne maanaam borom euh, ñaqut ci bi muy bi muy bind xasidaam boobu wala ñu ne bi mu koy bind ngànkut ci pilimam ndax bindkat dana dem ba ci kanam mu tag ngànk pilimam parce que dafa am lu mu bugg a wax te ñëwut bàyyi nag taggam yi muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tagg yépp danga gis ne maanaam mat mu mat la borom wara a li war a juddu muy xasaayit yoo xam ne yu rafet la lépp daan bind ay raxalaat ci commencement am raxalaat yi mu ngi ko daan bindee ci rajes ndax ñiy bind rex la moom lañ gën a miin ñii bind waytim moom lañ gën a mën a noggatu ci way yi ba dañ koo tuddee ne mooy ximaaru cheer mooy mbaam yi wëy ba nga xam ne ku jug rekk mën na koo ñol gu éeg xasida bii nag mu bind mu ngi ko bind ci baxar tawil baxar tawil ñi nekk ci daara ji di jàng ñoo ko xam faulun mafailun faulun mafailun waaye baay bind na ci baxar yëpp wa baxarun tawilun waafirun eh, eh, mëdd wa kawniya iyaahu alayya yasiiru bind na ci baxar al madid bind na ci baxar al basit bind na ci baxar al tawil bind na ci baxar waafir bind na ci baxrul xafiif bind na ci baxrul mutakaamil bind na ci euh, basiitul majzu bind na bind na bind na waaye ba mu demee ba nga xam ne pilimam bi xaraamal na ko ci tagg keneen ku may yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa xasidaam yi mujj yëpp boo demee ci dawaawi ni sitta xasida yëpp baxru tawil la ba mu des benn qasida muy jullu fikri fi maali ahmad aljamin nawaali muy bahr ramal boo ñëwee ci dawaawin bi nga xam ne mooy seyrul qalb bi nga xam ne mooy diwaan bu mujj bi yépp nag ci baxri tawil la li tax ndax tawil dafa gudd waaye ki atwalu nnaasi qaamatan wa atwaluhum maqaaman wa acdamuhum rutbatan wa alaahum makaanatan inda allahi tabaraka wa taala huwa rasulullahi salallahu alayhi wa sallam moo tax bi muy mujjëg tagg yonent bi salallahu alayhi wa sallam fa mel ni loolu moo munaasib mu tànnal ko baxr tawil bi nga xam ne moo gën a gudd ci baxr yi kon xasida bi ñuy jàng ci baxr yooyu la baxr tawil ci la ko bindee waaye mu nekk xasida boo xam ne taarixiya la boo xam ne dafa ne maxata yi nga xam ne jaar na ci yépp dana ko ishaara ci xasida bi mu làmboo li nga xam ne moom la asr bi mu bind xasida bi loolu lañ doon dund xasida bi tim daf ko làmboo mu feeñal jànkuwante bi muy jànkuwante moom ci tukki éeg ak a wàcc ndax dëkk yim lay tuddal yépp def cee éeg wàcc ci loolu yëpp pour àgg ci uyu oote bu nga xam ne mutamar euh, jamiya al islamiya bi nga xam ne moo nekkoon ci seen ñoo ko yónnee woon invitation pour mu pour mu dem gane ji leen nga gis jamono jooju 1963 ci octobre ci la baay bind xasida bi ci tukki mi ci at boobu la tukki bi nekkoon muy tukki boo xam ne wàccuwaay yim ci jaar gis nañ ko ci xasida bi mas naa am leetar boo xam ne sax xat xaay xataay jamono waaye mu ngi ko bindoon waa kënu di leen wax ma xatta yi nga xam ne fa lay wàcc ba ci ci tukkeem loolu yépp waaye muy wane ki oote jëm ci yàlla tabarak wa taala nan la fan la àgg ci moom kenn du wax ne Baye Niass radiallahu génn na ba fii ci Chine di nemmeeku ay mbokki jullit te fekk nemmeeku jullit yi ci senegal déedéet boobu jullit yi ci Sénégal yépp nemmeeku na leen am na ak ñoom taxawaay bu rafet wax na ci ay waxam ne moom xém na ba ko journaliste saoudien laajee te loolu ci ay aj atam yu mujj la kan moo la gën a xéem mu ne ko yontu yàlla muhammad sallam ku ci tegu mu ne ko saxaabaam yi ku ci tegu mu ne ko xéem naa ku gëm yàlla ku nekk ci kem ni mu doonnoo ci yonantu bi sallallahu alayhi wa kon peese bi nga xam ne ci lay peese nit ñi mooy seen ndono ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ñi àggut ci ak ndono ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam terewul mu ngi xeeñtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax xam nañ ne xam nañ ne ci seen um, ci umma bi muhammadina sallallahu alayhi wa sallam la bokk dem na bay ñaan yàlla di wax ne yàlla yàlla nga ma dëppale képp ku baax ku nekk ci réew mi loolu pour xam ne maanaam ñu baax ñi ànd dimbalante dafay dëgëral lislaam ihtimaam bi amril ummati man lam yahtamma bi amril muslimina fa laysa minhum ku itteewut mbiri jullit ñi bokkuloo ci ñoom moo tax moom dafa ittewoon mbiri jullit ñi fépp fuñ mën a nekk xasida bi danañuy jàngal dana danañuy taxawal ci loolu ndax oote boobu nga xam ne moom la oote woon ci buñ ko oowoon mu dem China pour uy ji daawa boobu noonu pour dimbalanteeg mbokki julli yi nga xam ne ñu nga fa nekk te mu nekk rex la boo xam ne def na fa fukki fan ak ñaar raxla bi lu gën a bëri ci wàlli li ci aju ci wàlli taarix masdar bi lu ci ëpp ci ustaaz Ibrahim Mahmoud Diop la radiallahu anhu ardaahu ndax moom shaahidu iyaan la ci lii marja la ci waxi baay waaye rawatina li nga xam ne nii moom tukki boobu moom ak Cheikh Ibrahim radiallahu ñoom ñoo ànd def nañ foofu fukki fan ak ñaar Cheikh Ibrahim doomam def na ko ci téere eh, jazaahullahu xeyran am na lu ci def ci téere am na ci loo xam ne bàyyi ci boppam nettali na ko mu ci bànd yi ñu dégg ko ndax bam demee Chine gannaaw uy ju oote boobu nga xam ne loolu rek wane na itteem ndax boobu commencé na am na 73 ans dégg nga ak itteyoo yi muy itteyoo toggoo tukki boobu métti na rawatina dem ba caay na ci jamono jooju nga xam ne yoon yi avion yi melutoon niñ mel ngir uyu daawa boobu visité na fa ay place yu bëri yoo xam ne ni ay metxaf lañ dégg nga julli na fa ajuma ci jumaa ju mag ji maanaam ñu fay tudd euh, xabru bu nga xam ne dañ ko faa def ne dañ ko tuddee ne xabru saad bin abi waqaas la bañ ko yóbboo foofu tim moom tawassul na ci saad ànd ak ne saad bin abi waqaas buñ xam moom xam nañ ne Medina la génnee àddina ndax wax nañ ne moom lañ mujj suul ci ci saxaaba yi ci Medina boo demee ci buntëb eh, wasiya ci saxiix muslim da nga fekk foofu Saad bi nga xamee ne dafa nekk Màkka feebar foofu mu ñaan yonentu bi sallallahu alayhi wa fekk dafa wax ne moom dafa bëgg a maye alalam yépp benn doom bu jigéen la am kon moom dafa bëgg a joxe alalam ndax amut ku ko doon yonent bi sallallahu alayhi ne ko kenn ci yéen mu ne ko ndax ma joxe suma genn wàll alal mu ne ko déedéet alal yépp mu ne ko bari na genn wàll gi mu ne ko bari na ma joxe sulus bi mu ne ko sulusu wa sulusu kathir li an yatruka ahadukum iyaadahu agniyaa xayrum min an yatrukuhum aalatan yatakaffafuuna annaasa ñetteel bi daal mën nga koo joxe waaye kenn ci yéen bàyyi ay njabootam ñi nekk ay boromi alal oom loo walis nit ñi moo gën nga bàyyi sa njaboot ñi nekk ñu ñàkk moom nag mu ñaan yonent bi ne ko dama bëgg nga ñaanal ma bu ma dee fii màkka loolu ñoom ñi ngi ci jubluwoon woon comme dañoo gàddaayoon màkka dem Medina pour dëggal seen gàddaay bugguta deexee màkka yonent bi ne ko sallallahu alayhi wa amaana yàlla bàyyi la fi ba nga jëriñ ba lor ay nit ci yow jëriñ ay nit ci yow moo tax gannaaw gi dund na lu yàgg gudd na fan ba wax nañ ne moom lañ mujj a suul ci Medina ci sahabatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis jooju am na foo xam ne moom mu ngi wax ne al miskinu bi ibnu xawlata mu ne miskin bi mooy saad ibnu xawlata ndax moom màkka la dee loolu xir gi ñu xiroon ci dañoo gàddaay dañoo bàyyi màkk ngir yàlla li màkka baax yépp dañoo bàyyi màkk ngir yàlla dem Medina ñoom ñépp dañ daan ñaan yàlla ne buñ leen yàlla moom mukk màkk moo tax Saad mu ci xasida bi bàyyi def tawassul ci moom ndax moom mu ngi teewlu saxaaba yi yépp mu ngi teewlu yonent bi def tawasul ci moom def tawasul ci sangam bi mu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa waaye xam ne ne Saad Medina lañ ko suul waaye dañuy wax ne mm, euh, empire de seen deuxième empire bi China moo tabaxal xabru abi waqaas foofu ñoom xabru abi waqaas lañ koy wax waaye tim dàqwantewut ak nem mën naa am saxaaba bu tudd abi waqaas boo xam ne moo ñëw foofu ñu tabaxal ko ñi tabaxal ko euh, euh, xabru la ay tixaal dem na gisanteeg jullit ñi foofu def na fa conférence sax boo xam ne ci relation euh, africain yeeg Sénégal ak Chine yooyu yëpp def na fa ko elente woon yooyu yëpp ñi taxaw ci ay kayitam euh, mu dem pakistaan bi nga xam ne euh, mutamar alamil islami bi nga xam ne moom Amin Hussein bi nga xam ne moom mooy doon mufti Palestine moom moo doon rais bi bàyyi nekk naib rais bi am ku ñuy wax inaamul ilah inaamullahi xaan bu nga xam ne mooy bàyyi moom mooy tudd markazam boobu kooku moo nekkoon amin am boobu noonu amin Xuseyn boobu mu ngi dajeeg bàyyi ci ajam bu njëkk ca minan ca xayma ci minan la dajeeg bàyyi moom ak beneen wazir libnaani bu ñuy wax Riyaad Sulh ñi waxtaan foofu jëlante joxante dëxal ne ñoom ñetti ñooñu ñëpp ku ci sa réew njëkk a am indépendance da nga dimbale ñi ci des nga gis bàyyi ba mu commencé di sonn ci xadiya xadiya muslimin yi nga gis kon alaaqaam boobu nga xam ne nii téere bi dana la wan alaaqaay boobu dana la wan jokkoom ak boroom xam-xam yi dana la wan itteewam ak duaatil muslimin yi nga xam ne seen ànd dimbalante te bokk na ci li mu waxoon ne ci ahdaafi daawa bi la mu waxoon ci muqaabala bi mu def ak euh, euh, bi ne euh, rabt rabt mbooloom mi ci yeneen dégg nga xarakaati daawa islaamiya yi ci àddina bi loolu bokkoon na ci ba dem Pakistan Pakistan def na fa ñeneenti fan Karachi bi muy wax mu ngi ci biir xasida bi ñeenti fan yooyu bàyyi ci boppam dégg naa ci bande mu nettali ne def euh, teew na fa def na fa fukki conférence ak ñett yoo xam ne am na ci boo xam ne julli ajjuma la moo ko jiite ak xutba bi mu ne ba ko fukk ak waroon a fukk ak ñeenteel mu ne dañ koo invité ba mu ñëwee mu gis ne ndaw yi ñoo gën a bëri ci place bi mu xam ne ndaw moo gën a mën a jeexital ci ndaw mu wax oustaz Ibrahima Mahmoud Diop ne ko mu wax ak ñooñu loolu nga xam ne yaatu dënnam fi mu toll ci xam-xam waaye tim óolu na ñi nga xam ne ñoom la yar ba fuñ ko oo mënta dem dana oo kenn mën naa bàyyi kum yar mu taxaw foofu te dara manqué wut te loolu ba mu koy am mu ngi ci commencement am ndax ba muy aji màkka wasiya bi mu bindoon am na boo xam ne ci yim bindoon ba muy dem daf cee waxoon ne bu yàlla defee mu dee ci aj gi lépp lu ñu doon ut ci moom bàyyi na fi ñoo xam ne nii mën nañ koo ut ci ñoom te mooy ñi nga xam ne yar na leen ba jox leen lijaasa litlaax ci mbindam wala bindi bindkatam Seydi Ali Cissé te mu ne loolu moo gën a bëri te boobu ma ne xamoon na ne du dee ci aj gi waaye daf doon wan nit ñi ne diit bi may def màkk doonte ñaari weer la maa ngi fi ñoo xam ne ni man ngeen a jëriñu ci ñoom bu leen leen bu leen leen bu leen ñàkk jëriñu ñoom di xaar ba ma ñëw lu tax ma wax ne xamoon na ne du dee ci ndax boobu fekk na mu bind leetaram bi muy wax ne yàlla jox na ma ci dund loo xam ne moo ëpp suma dund baay te boobu àggagut ci loolu ñu ngi bëgg a euh, dugg ci waxtaani taarix te waxtaani waxtaani euh, waxtaani gàmmu lañ doon waxtaan xasida bi waaye xasida bi moo làmboo taarix bàyyi wax ci lu bari ci wax wax euh, ay ay ay xa jëmm yoo xam ne ñu xam lañ dégg nga tudd leen nga xam culture am fan la àggoon Napoléon Karl Marx Lénine dégg nga ñooñu muy tudd yëpp John Foster ñooñu ñëpp mu ngi leen di tudd ci xasida bi nga xam ne loolu yëpp lu muy junju rek pour waxal la kii maanaam gannaaw boo xamee ne lislaam la tànn tànn yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nattu na yeneen yëpp ba xam ne yeneen yëpp tuuti na ci kanam yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax euh, xaalam bayteem bi ki jàng ci liñ mujj a jàng léegi te saaxara indi gayru ni innani oraji min alhaadi alibadi manaala nee na kudut yonent bi salallahu alayhi wa tuuti nga ci suma kanam jarut kenn kudut yonent bi salallahu alayhi wa sallama def ko muy roy bokk na ci li muy jàngale ci xasida bi ndax nit ñi dañoo gaaw a xoru ci koo xam ne nii dafa am tur ñi ne boroom xam-xam la kii philosophe bu mag la kii nangam kii nangam kii nangam waaye bàyyi ñooñu ñëpp indil na leen wan la ne ñii duñ ay yonantu yàlla bu nekkee ay boromi xeltim duñ ay yonantu dafa am fu ñuy lajjee kon ki nga xam ne nii mooy lum indi rek dañ koo war a jël lum aaya dañ ko war a bàyyi mu yonantu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ndax yàlla moo wax ne wa ma aataakum rasul fa xudu wa ma nahaakum anhu fantahu yonantu boobu la wax ne raditu bi rabbi walxanifatu maslaki imaami rasulullahi la ataxallafu دليلي كتاب الله والبيت قبلتي نصوم وبالبيت الحرام نطوف نصلي سجودا راكعين وإننا على ذا درجنا الدهر لا نتقشف ne yàlla laa gërëm mooy sama borom yoon wii muy diinul islaam moom laa gërëm mooy sama diine moom laa soobu sama ilimaan mooy yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te du ma des gannaaw maanaam li yënantu bi def loolu laay def sama tegtal mooy téere bi yàlla bi muy alquran sama jubluwaay sama xibla mooy néeg bi yàlla bi muy kaaba gi dañuy oor dañuy xaj dañuy julli ci lii lañ nekk te duñ duñ wañ su wañ su wañ sulu duñ jaxase dëgg ak fen kooku nag xasida bii nga xam ne moom lañ bëgg a jàng tey jamaata wajudan haybatan wa jalala wa absartu min daa bahjatan wa jamaala jamaaluka unsun haybatun wa mahabbatun anta atamu almursalina kamaala jamaata la wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boole nga loo boole lu bëree bëree bëree bëree bëree bëri moom la indi ci xelam mi door cee wax wajuudan ñu bëri damay dégg ñi tàmbalee jàng arab damay dégg ñuy wax ne jamaata wujuudan waaye du loolu jamaata wajuudan wajuudan atf la waaye comme liñ ko atfu gisuñ ko te loolu duut luñ miin ci naxwu moo tax ku nekk da ngay foog ne jamaata wujudan la waaye jamaata lan annubuwata wa risalata wal xatmiyata wal juuda wal karama wal adalata wa saxaa wa shajaata wa wa wa doora wax nag ne wajuudan yow yaa boole nangam ak nangam ak nangam ak nangam ak nangam ak nangam door a wax nag ne loolu nga booleek sag tabe Baay dellaa bu waxee ci yenantu bi la wax bu noppee ci moom lay wax moo tax bu ne ko wajuudan moom wax na yu bari yoo xam ne juudan googu waaw gi waaw atf la ma loolu dañ koy wax al atf bil man wi danga atf ci loo xam ne yaa ko éene ci sa xol tuddoo ko ma ne li bàyyi éene ci xolam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noppeem yi mu ngi ci waxam yi mu ci ndax fa taban uhibbu al mustafa wa isharati ilayhi wa tawran bil widaadi usarrixu dama bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy bind boo xam ne yàlla ma ko bind bi xubbika yadcuuni dawaacin adidatun jamaalun wa ixsaanun wa tabcun muwaafiqu wa aayaatu sidqin baana jahran bi annaha min allahi kullu amri raaqa wa raaiqu wajudan mën naa nekk ataf ci loolu yëpp ndax li mu koy wax li may oo pour ma bëgg la sa taar bi sa mbaax gi sa sa rafetal gi sa taaru gi taaram bi nga xam ne xasaan bin saabit waxoon na ko wa axsanu minka lam tara qattu ayni wa ajmalu minka lam talidi nisaau xuliqta mubaraan min kulli aybin ka annaka xat xuliqta kama tashaau suma bët mast gis ku taaroo ni yow jigéen mast jur ku rafetee ni yow yàllaa la bind nga nekk ku mucc ci mboolem ayib mu mel ni dañ laa bind rek comme ni nga ko bëggee moo ma gën a xam way waaye man bu ma doon wax damay wax ne kama yashaa'u yàlla la bind ni mu ko bëggee moom yàlla tabaraka wa taala kon bu noppee hadaani ila xubbil amini qad awsalani al mawla al baraya hmm? fuaadiya marhunun bi xubbi muhammadin falaatib muhibban saara lil qalbi raahina wa sëkkatani zaakal jamaalu wa sëkkatani zaakal jamaalu taarab boobu moo ma noppiloo wa rubbama ataala lisaani fihi lil madhi waazina taar boobu moo ma noppiloo bu ma noppee ci laay xalaat kon wajuudan bi man maa ko ataf ci noppi googu wa rubbama ataala lisaani fihi léeg-léeg ma wax ci moom wax ju bëri wajuudan mën naa jël ci waxi bàyyi boo xam ne ci laa koy ataf wax na ne tara kullu mafuuli tara kulla mafuuli bi fiili muhammadin wa xaali wa tamyizi ilayhi yushiru wax ne asmauhu alaamu asmaai ashxaasi ildati fa mahma taraani fa rasulu damiru da nga gis suma jëf yépp ci jëfi muhammad la sallallahu alayhi wa sallam waaye sama xaal ak sama tamiis yépp yonent bi lay junj ku yonent bi sa lépp di junj yonent bi kon am nga droit wax rek ba ci kanam rek nga ne ak nangam nee na ko say tur mooy asmaaw alam yi nga xam ne samay doom moom lañ xamee waaye fa mahma taraani waxtu woo ma gisee rek fa rasuulu damiru boo ma gisee rek bàyyi mu ne yonent bi moo nekk ci sama biir Muhammad taraani wa rasulullah kon lu jiitu ci wax yu bari yi nga xam ne alquran a ko wax ci yonent bi way tagg yonent bi sallallahu alayhi wax ko ci moom seydna ali wax yaqulu naaituhu ma raaytu mislahu qablahu wala baadahu masuma gis ku mel ni moom njëkk ma koy gis wala gannaaw bu ma ko gisee soxna si nga xam ne dafa aj ak bi ñu wax ko ne ko melal ko sallallahu mu ne kaana qal qamari laylatal wax na ne maa raaytu mislahu qablahu wala gisuma ku mel ni moom njëkk ma koy gis gisuma ku mel ni moom gannaaw bu ma ko gisee kullul kamaali wa jumlatul jamaali yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ko yàlla moom loo yàlla dafa rafetal bindam rafetal jikkoom rafetal biiram laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum xarisun alaykum bilmuminina raufun rahim fa in tawallaw faqul xasbi allahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim am nañ jàng min anfusikum seydna ali riwaaya nañu riwaaya boobu mu jógee ci seydna ali yonentu boo xam ne ci gën a tedd ci yéen ci la ñëwee yàlla wéttale jaam yi ba mu koy yónni yónneeluñu malaaka yónneeluñu jinne nit la yónnee koo xam ne nii moo gën a oyof ci nit ñi moo gën a dëggu ci nit ñi moo gën a yaatu ci nit ñi li Seydina Ali radiallahu anhu wax ne asdaqu nnaasi lahjatan wa alyanuhum arikatan wa akramuhum ashiratan mooy ki nga xam ne moo gën a dëggu ci nit ñi wax gannaaw bu mu jiitalee sax aw sa'u naasi sadran ñenn ñi ne ñi ne ashja'u naasi sadran moo gën a jàmbaar ci nit ñi moo gën a yaatu xol moo gën a mën a wax dëgg mooy ki nga xam ne moo gën a nooy wall wax na ne yàlla yónni na ma ci jaase ak nooy waaye woo jëttul na ak taamina sayfi yàlla yónni na ma jox na ma jaase naam waaye jox na ma nooy fekk naa nooy dagg na loo xam ne nii jaase mun koo dagg bàyyi ne fa hu sifatun wasmun wa zaatun wa xaybuha fa hu kaamilun adlun karimun wa muqsitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama melo la waaye turwa la waaye jëmm ja la waaye xaybu bi nga xam ne moo nekk ci gannaaw turweeg melo yi loolu ñaari bayt yi dañ ko génnee jamaata wa juudan yaa boole li ma wax nii yépp ak li ma waxut ak sa no ak noppeeg bàyyi googu nga xam ne yépp ci yonent bi la sallallahu alayhi wa sallama màggaay yooyu màggaay yi alquran wax yooyu yëpp moom laa la bëggoon a taggee lu ma ciy teg yàlla gannaaw bu la yàlla taggee lan laay wax damay wax ne gannaaw yooyu yëpp maa ci teg ne yaay ki tabe gannaaw yooyu wajuudan am nga tabe tabeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga loolu du tabeeg nit tabe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du tabeeg nit boo demee ci saxiix euh, xaari saxiix muslim ci baabu riqaaq da nga fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax ne mébét daf ne daf ne Ibn Abbas daf ne Abu Zarin dañoo romb jëbal Uhud mu ne ko bu ma amoon alal ju toll ni jëbalu Uhud bu ma amoon alal ju toll ni jëbalu Uhud bugguma fanaan ñetti fan fekk dërëm a ngi ci des lu may boo xam ne nii dama ko denc ngir fay bor boobu ko négg tegg na tabe waaye tabe googu kenn su ko dégg te yi àddina ñëwal na ko mu séddale séddale seddale ba julli fajar ba mu sëlmalee rek ñu gis ko mu jug jéggi nit ñi doo xam ne du wut aadaam ñu ne lan ndax fekk na dafa am juróom-ñaari dërëm yoo xam ne alal ju ñëwoon ci moom mu koy seddale ba mu des juróom-ñaari dërëm mu ne bu yonente bi yàlla bi dajee woon ak boromam fekk juróom-ñaari dërëm yii mu ngi ko denc ci néegam lan lay wax boromam loolu mooy jëmmi tabe yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne wax na nag lu raglu ne ñi gën a bëri ci àddina ci alal ci àddina nag ñooy gën a néewle ci àllaaxira lu may koo xam ne nii lay def di def nii di def nii di def nii di def nii di def nii di séddale mu ne te loolu lu néew la noonu la tabeem foofu la tabeem àgg tabeem fi mu àgg googu lu fa àggalee mooy dëddoom yàlla dëddoom lu dul yàlla moo àgg foofu ndax nee na àddina xoral keneen ku may man jëbali tuxaama gaaral nañ ko ko ndax ñi defal ko ko yépp urus mu ne déedéet tànn na léeg-léeg mu am léeg-léeg muy ñàkk bu bu ñàkkee muñ bu lekk bu amee lekk sant yàlla ku ñaan ba nga xam ne dafay ñaanal allahuma jaal risqa ali muhammadin quutan yàlla defal wërsëgi ñooñ muhammad muy dund rek bu xemaay xem ci dund na ba génn àddina masta gis xar bu ñu wàjji lëmm yonent bi tiim ko taabal di ko lekk déedéet masta gis loolu kon toskare àddina ak li ci biiram yonent bi sallallahu alayhi génn na àddina bàyyiwut lu may silaaxuhu wa baxlatuhu wa ardan jaalaha sadaqa wa dircuhu marhunatu ala yadi yahudi ba muy génn àddina bàyyiwut lu may ngànnaayam ngànnaay nga xam ne ni moom lay xeexee ci yoon yàlla loolu it dafay wane njàmbaaram ak li ko yàlla jaral ndax dem na ba wax ne wadittu anni qutiltu fi sabilillahi summa axyaa summa axyaa uqtal summa axyaa uqtal summa naa mu ne ñi ray ma ci yoon yàlla dundalaat ma rayaat ma ci yoon yàlla dundalaat ma rayaat ma ci yoon yàlla dundalaat ma rayaat ma ci yoonu yàlla dundalaat ma kooku noonu la ko yàlla jaral moo tax bi muy génn àddina bàyyiwut bàyyiwut benn alal ngànnaayam nga xam ne jihaad jee ko moom la waxoon ci Seydina Ali ba muy takk Fatima Zahra ñu ne ko loo am mu ne ngànnaay bi mu ne ko jihaad jee ko moom ngànnaayam bi nga xam ne jihaad jee ko moom ak bax la bax la mooy mbarkel ak suuf soo xam ne daf koo bàyyi sarax ndax waxoon na jiitoo na mu ne ñun yonent yi du ñu doon luñ bàyyi sarax la ma ne bayt yi ñett ñaari bayt yi jamaata wajudan haybatan sa yaa boole teraanga yooyu yépp boole kook tabe gi nga tabe boole kook boole kook wegu gi nga wegu Baay radiyallahu nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallama moo gën a rafet yusufa waaye moom taaram bi dafa bokk ak wegeel ba jigéen sax bu ko gisee du ko ñemee du ko du ko ñemee nopp boo ko gisee danga koy ragal boo day boo boo jaxasoog moom da koy bëgg ba dootoo bëgg tàggale koog moom li woykat bi wax ne bu fekkoon ne jigéen yuusufa yi nga xam ne bañ gisee yuusufa dañoo fitnawu ci yuusufa bay dagg seen loxo buñ gisoon yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam duñ dagg seeni loxo waaye seeni xol la ñuy dagg te ba léegi mbëggeel yi yonent bi sallallahu alayhi mu ngi dagg ay xol mu ngi tere nelaw ay góor xëybatan kon wegeel gi nga xam ne moom la ko yàlla may ba nga xam ne ku ko gis doo ko ñeme dugg na Makka am arab bu koy xool tiit lool bay lox mu ne ko mu ne ko xoya falal man duma buur doomi benn jigéen bu doon lekk ay seel fii ci màkka rek la maanaam nit laa comme yow ku ànd ak màggaay bi nga xam ne moom la ko yàlla màggal bàyyi ne wa ab sartuma gis nag min za ci lii bahjatan taar wa jamaalan ak taar bi nga xam ne moom la ko yàlla jox moo tax mu ne ko jamaalu ko unsun sa taar bi wéttal la waaye dafa ànd ak haybatun dafa ànd ak wegeel wa mahabbatun ànd ak mbëggeel fa anta yow atamul mursalina yaay gën cee màgg ci ñu yàlla yónni kamaalan ak mat nga xam ne kon tudd na tudd na tudd na jamaal tudd na jalaal tudd na kamaal moom la tudd fële ne wa hu sifatun wasmun wa zaatun wa xaybuha foofu dool moom ay barabi junju la rek junj rek lañ ciy def ay barab yi junj la moo tax jamaata la ko wax yonent bi am na ñu koy ooxee mu jamaa ndax moom dafa boole mbooleemi kaawteefi yonent yi ak mbooleemi màggaay bu yàlla may doomi aadama rek boole na yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax ñu koy wax mu jamaa bàyyi am na xasidaam bu mu def di wax ne zamamtu rikaaba shawqi tanxul mujammaa bihi jamaa allahu almafaxira ajmaa mas naa bëgg a dem màkka jox suma visa koo xam ne ni dafa jàpp ne man lu mant xew rek danaa am visa mu jaay sama visa bi ba dara desul lu may def dem màkka mu ne maa amago amagoo visa ma jàng lu nekk jàng lu naa lu nekk boobu maa ngi e, Dakar Moustapha mi fekk na ma boobu maa ngi maa ngi waaj boobu yaa ngi ma fekk fële ca Jili Mbay ma ne daal xaaral daal tey sirul usul wii daal comme baay tey sirul usul la koy tuddee yombal àgg ci yonent bi sallallahu alayhi jàng naa ñaan yi ma xam yëpp jàngulu naa lu nekk ma ne xaaral ma commencé te mu jigi ñi ma diggoon visa bu ma leen ooyee du ma leen jot waaw ma téye téere bi di jàng rek téye téere bi di jàng rek ba ma agsee zamam turi kaaba shawqi anxul mujamaa man takk naa bagaas yi cofeel jëm ci ki nga xam ne mooy mu jama wallahi bi ma ci àggee ki ma doon wax ak ci la ma oo naan ma xale bi nga waxoon ma utal la visa ma ne ko man waxtuma ci benn xale man man sama bopp man sax aw ma visa mu ne ma yow moom amoo problème jox yónnee ma ma defal la visa diwaani baay bi lu nekk mu ngi ci lu nekk lu nekk mu ngi ci yal na yàlla may dëggu guñ ci jëlee parce que dëggu bi mooy xam nga xaalis bi banque bi am na xaalis waaye chèque moo koy jël léegi sax nga am fa sa xaalis yow te fekk sa chèque jeex ñi lay dugaloo fii dugaloo fii dugaloo fii nañ fexe ba suñu chèque yi bu mu jeex ci pay bi mooy mbëggeel gi rek moom mooy benzine bi dafa nekkoon gaana di tukki ci oto oto euh, taalibe bu ñëw Abdul Qadir nooga ñu dem ba ci kanam oto bi taxaw bàyyi ne ko lan la lu lu xew mu ne ko essance bee jeex bàyyi ne ko ma al mahabatu fi l muridi ida nafidat mahabatuhu waqafa sayruhu nii la mbëggeel mel ci taalibe taalibe bu mbëggeelam jeexee rek sëyroom doxam jëm ci yàlla jeex na ndax essance bi ko doon yóbbu amatul waaye boole na ci bayti yi mu ne zamam turika ba shawqi anxul mujamaa kooku yonent bi la moo tax mu ne ko fii jamaata anxul mujamaa lu tax bihi jamaa allahu almafaxira ajmaa moom mi nga xam ne euh, yu baax yépp teranga yépp puukare yépp ci moom la ko yàlla boole xam nga ba bàyyi bi muy wax ak jamaata wajudan fekkoon na mu wax bayti bii la mu waxoon ci bayti yooyu nag ma ne moom lay ataf moom lay ataf lam moom lay ataf ci wajudan bi rek fa abdun tajalla sayid alkawni yaa lahu taxayara fi xaatiru lmutajanjimi xawaatiruhu tuci alawaalima xasruha wa ma naasabat qadran li taaxal mu fax muqaddami ki nga xam ne jaamab yàlla bi nga xam ne yàlla def tajalli ci moom mu feeñ di sang kawnu bi yépp bàyyi ne moo tax xaatiri kii xalaat moom gëlëm na ci ay xarbaaxam àddina lépp mënu koo lim te xarbaax yi lim bari bëri àggut ci dayob yonantu bi sallallahu alayhi wa naa ma nasabat qadaran li taaha al muqaddami loo naasabat qadrahu ayaatuhu izaman axyal wara axyal axyismuhu xiina yudaa daari sarimami loolu la Busayri di wax moom sax bàyyi ne wa maa naasabat qadran li taahal muqaddami loo naasabat qadrahu ayaatuhu izaman bu fekkoon ne kawteef yi yonantu yi de yonantu bi dañoo toll ni yonantu bi kon sax boo ooxee baati Muhammad rek mu dundalal la yax yi dee ba funux xanaa kaawteef yonent bi bi ci méngoog yonent bi mooy alquran ndax kaana xuluquhu alquran axis bu xiina yu daa sa rima damay fàttali lu bàyyi nettali ci manasiku alxaj ñooñu nga xam ne dañuy weddi rek am koo xam ne dafa dégg ku naan yaa muhammad mu ne ko yaa muhammad moomu ngay oomanu dara suma xet bii li man sa yaa Muhammad boobu manu ko ndax bu ma dóoree suma mbaam mi xet bi mu jug te boo wonee yaa Muhammad du jóg waa ji ne ko li nga li nga wax nag teg telehut li nga bëgg a wax ndax yow gëm nga ne yaa Allahu mën na dara te boo ko waxoon sa mbaam mi du jug est-ce que yaa Allahu moo mënut dara wala yow yaa ko ci manut kon tim yaa Muhammad man na moom moo ko ci manut xettali nañu bëree bëree bëri bëri ci zaahir ak ci baatin waaye ay kaawteef lam lu màgg-màgg bàyyi ne tolloowut ak moom kaawteef yonent bi doy na ci li yonent indi ci ay kaawteef yépp kaawteef yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam ndax moom rek lañ doon waajal wa kulluhum min rasulillahi multamisu garfan min albahri aw rashfan min addiyami wa kullu aayin ata rusulu lkiraamu biha fa innama tasalat min nuurihi bihimu bépp kaawteef boo xam ne nii yonent yi màgg yi indi nañ ko ñu ngi ko amee rek ci leer ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qad jaakum min allahi nuurun wa kitaabun mubin yahdi bi ila man ittaba ridwanahu subula salaam wa yuxrijuhum min azulumaati ila nuur nuur boobu mooy yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama moom la ko yusuf na bahaani taggee nuuru kal kullu wal wara ajzaau yaa nabiyan min jundihi l anbiyaau moom la ko bàyyi taggee nuuruhu awalul wujudi wujudan fa huwa aslul usuli wal anjaali leeram gi mooy cosaani nekk ak nekk gi ci nekk mooy cosaani doom yi moom mooy cosaani bàyyi wa mawliduhu azim bihi wa ulumuhu wa israuhu baada aljamaali mufaxami judduwaayam bi israam bi xam-xamam bi ki nga xam ne yàllaa ko xamal isra bi nga xam ne moom la def nga xam ne rañaan ci rooxo bàyyi ne wàll yu bari def nañ ko waaye rañaan ci rooxo ak yaram yonentu yàlla muhammad rek sallallahu alayhi wa sallam moo ko mën def li israa gi làmboo ci màggaay yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam jiiteem yonentu yépp ñoom ñëpp ñi nangu ne moom mooy seen yonentu comme ni nga xamee ne yàlla jëloon nañ ñoom ñëpp seen kàddu ne buñ dajee yonent bi sallallahu alayhi wa dañ ko gëm daje nag ñoo moom gëm nañ ko nangul nañ ko julli nañ ci gannaawam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa baay bàyyi ne taaram bi ak màggaayam gi man moom lay moom laay moom laay yundu mu hemma tanawartuhu fi xaalatayhi fa xaalani jamaalu jalaalin lil madiixi yunachitu maa ko séentu ci mboolem ñaari xaalam yi ci jamaalam bi ci jalaalam bi mu may ma xaal boo xam ne nii daf may daf may daf may daf may puus pour ma taggu ko moom la wa huwa alladi tamma maanaahu wa suuratuhu uma stafaahu xabiban baari un nasami moom la bàyyi waqat tamma suuratuhu wa tamma maanaahu sooraam jëmmam jëmmam ji lépp dafa mat waaye maanaam bi moom gën a mat lépp mataayi jëmm jooju ma ne saxaaba yi melal nañ ko abu xaalata mellal na ko seydna alxasan mu ne dama laaj sama nijaay abu xaalata mu wax ma xabaar yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nu meloon mën na bugg seydna alxuseyn toog ba jëmmi jamono ma ñëw di ko wax ndeko ko it suma baay waxoon na ko naka la yonent bi sallallahu alayhi wa meloon ci matam ci taaram ci oyofam ci mbaaxam loo xam ne nii kenn masta gis lu mel ni moom gannaaw moom moo tax xeeyoon na li ko yàlla taggee ne ko wa innaka la ala xuluqin azim yaa ngi ci jikko ju màgg moo tax bàyyi ne fa umriya ma shahadtu shibha jamalihi fa lil matxu wa tanzihu umri muwaqatu ndax masu maa gis lu niroog taari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kii laajte dafay laajte ne waaw da ko gis boo amut ci fenn lu may ci téere yi li téere yi wax ci yonent bi yëpp sallallahu alayhi wa sallam moom goreel na ko waaye yàlla may na ko raaytu rasulallahi jaada bi bugyati wa ma gaaba anni dahra barran wala bahra gis naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu may ma sama bëgg-bëgg masta tàggoog man du ci géej du ci jéeri raaytu rasulallahi jahran wa yaqzatan bi baariz hal zaaka almahallu mahalluhu gis naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jahran wa yaqzatan gis naa ko ci Paris ci Paris ndax Paris place yi yonent bi la dama foog ne gis yooyu bàyyi ak dund yooyu bàyyi xasidaa mi muy indi Paris mu ngi nii moo indi français yaa ngi nii toog nii ñoom Zakaria ñoom euh, Farid Mathias ñii ñëpp jugee ba Luxembourg ak am na ñeneen ñu àndoon ak ñoom ñoo xam ne jiitu lañ leen ñibbi nokki yooyu bàyyi doon nokki foofu nga xam ne mu ngi koy dund ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ommat ñooñu ñëpp indi leen fii ñi ñëw di bokk ak ñun ci guddi yi waxoon na ci commencement am wa arifu sallallahu alayhi wa sallam maarifatan law adraktu xayan xayan lama zaadani fi zeynika walhamdulillahi ba ko mbootam di laaj ne ko ndax bokk nga ci góor yàlla yu gis yontu bi sallallahu alayhi wa sallam ci xoole ak ci nelaw mu daal maa ngi yaakaar loolu ci yàlla boobu foofa la foofa la em ak ngóon mi waaye fi mu em ak ngóon ñi passé na ko ñun daa wax nañ ne raaytu rasulullahi jaara wa yaqzatan waaye foofu mu ne mbóot mi waaye daal man bëgg naa ko bëgg goo xam ne xam naa ko xam goo xam ne bu ma ko fekkoon dund ak moom ci jamono tim ñaar yooyu dara du ci yokku loolu mbaax ak yàlla la karaama la bu yàlla jox wàllu yi te lépp nag yàlla nga koy def rek pour dimbale yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax karaamaay wàllu yépp mu ngi gongee ko ci mojise yonent yàlla muhammad bi sallallahu alayhi moo tax moo gën a tabe ñépp bàyyi nee nag wa min juudika dunya wal uxra wa ilmuhu amadda qilaama lawxi baada alladi waa ci sa tabe ci la àddina ak àllaaxira yëpp jógee nee na ko diyaauka minhu lkawnu qad yataballaju sa leer ci la àddina di leere wa min faydikal jaaril bi xaaru ci sa may ci la géej gi di duusi géej gi sax ci lay fuuree wala xarwa an al mustafa al qarma juuduhu bii said benn sikk ne yonent bi wa sallam ci la àddina yépp ak àllaaxira ak ak ajam yépp ci la ñuy texee fa anta atamul mursalina kamala kon ki boole jamaal ak jalaal kooku mooy ki nga xam ne moo gën a mat ñépp moo tax kon lahu sifatun wasmun wazaatun wa xaybuha boole na jamaal ak jalaal ak kamaal wa kulluhumu xaazal makaarima tagg na yonent yëpp nag ñoom ñépp làmboo nañ ay dayo ay màggaay yi nga xam ne yàlla leen ko màggal yàlla moo def Ibrahima muy xaritam ndaxam yonentu bi nee na yàlla def na ma may xaritam comme ni mu defee Ibrahima muy xaritam waaye jox na ko sax ma maqaamal Habib nga xam ne nii moo gën a kawe maqaamal Xalil ndax Xalil dafay ñaan ñu jox ko wajnubnii wa banii an na'budal asnaama Ibrahima ko ñaan yonent bi ñaanul yàlla tëb rek wax ko ne ko liyuzhiba ankum rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathiira xelil moo ñaan waj'al lii lisaana sidqin fil aaxiriin yonent bi ñaanu ko yàlla moo tëb rek ne ko wa rafa'naa laka zikraka te mooy yàlla def tudd yàlla tudd yonent bi tudd yàlla la yàlla def turam mu koy méngaleeg tudd yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam man yuti rasula faqad ataa allah dégg nga atew wa atew rasula di ko laaf ci boppam loolu màggaay googu benn yonentu amu ko Muusa yàlla waxe na ko dégg nga Isa yàlla def na ko muy dekkal way dee ñi loolu yëpp yonentu bi sallallahu alayhi dekkal na way dee te ba léegi roxo yaa ngi dekkee ci moom roxo yaa ngi dekkee sax ci way doonam ndax Cheikh Ibrahim newoon na aleyka salaatullahi wa salaamu hmm? wa bi bihi tula zamaani qubura mu ne yàlla yàlla na ngay dekkal ci jaam bi waxtu wu nekk yàlla ngay dekkal ci jaam bi xabru yi xabru yi mooy ñan mooy rooxo yi nga xam ne dañ koo suul ci jëmm yi nga xam ne nii xamuñ yàlla ñooñu ñu ngi dox fekk ay néew lañ néew yooyu la doon ñaan yàlla gannaaw julli ci yonent bi ne yàlla na yàlla na nga dekkal néew yi ci man wa tuxyi bihi tula zamaani qubura kon waxuma la yonent bi sallallahu waaye aji donnam mu ngi dundal mu ngi dundal mu ngi dundal dundal jëmm dundal roxo wa maakal imaam alhaashimi xisaala ñoom ñépp kay yàlla may na leen ay ay dayo yu kawe waaye kenn ci ñoom nag àggut ci ki nga xam ne moom mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàyyi nga koy oo xam nga boo commencé ci commencement ba sax boo taxawoon am foo taxaw ndax tëb rek ne jamaata loolu bokkut ci liñ miin tëb rek di wax ak ki nga xam ne ci moom nga jëm bokkut ci liñ miin rawatina ci uslub shi'ra yi nga xam ne nii moom lañ fekkoon ci boor bi nga xam ne dañuy euh, def téere yi nga xam ne moom lañ jàng ñi miin wuquuf alal atlaal wala nangam ak nangam def ay muqaddima yu gudd door a ñëw waaye jege bi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jege te leneen xajoohut ak yonent bi ci ak moom moo tax mu tëb rek jàkkaarloog moom di wax ci moom xarisun ala ihda sana wal madaaixi li jaanibi man suknaahu bayna al jawaanixi maa bëgg a yónnee maa xir ci yónnee tagg ak ay wëy ci ki nga xam ne ci sama wàll gii la dëkk kooku dëkk nag ci wàllam gi moo tax mu tëb rek ne ko jamaat moo tax mu tëbaat tim di ko wax ne ko muhammadu yaa xayral anaami yow ki nga xam ne yaay ki gën ci mbindéef yi ana sayyidu waladi aadama wala faxra moo ko wax maay sangi doomi aadama yi te pukkaréwuma ko moo wax ne anaa sayyidul qawmi yowma alqiyaamati yow ki nga xam ne yaay sama wasila sama borom may na la loo xam ne nii jéggi na wax xabaaka ilaahi maa yaru maa yafutu maqaala suma borom may na loo xam ne jéggi na wax maanaam làmmiñ mënu ko wax anta wahabtal biida yaay ki nga xam ne yaa may ñu weex ñi wa suuda yaa may ñu ñuul ñi am na ñoo xam ne suud léeg-léeg nga gis ko ci téere siira yi ñu firee ko ne mooy arab yi biit mooy ñu weex ñi dégg waaye dana dana yóbbaale tim suud yi yaay may ñi weex ñi yaa may ñu ñuul ñi fantaxaa te jublu ñëw ci sa wàll ilayka xadimun minka raama minka manaala moo tax sa bëkk bi moom jublu ci yow ngir ut ci yow ay may te utu ko fi fenn wax ji leer na wa anta wa habta ba pare mu tournéwaat di ko wax ne ko wa anika xeyral alamin yow rek laa wax nag yow rek laa namm ci li may wax kàlluma léebuma waxuma keneen yow daal laa wax yow ki nga xam ne wasilati bu taxutoon nag bayti bi dafay am yaa yaa wasilati mu nii lii yow ki nga xam ne yaay aji may ma yaa may may la del yow mi rahi bi ci bés bu rag lu boobu nga xam ne liir yi sax dañuy béjjaaw yaay ki may may ay may te yemani xubbika sa mbëggeel nag feebar na ma feebar loo na ma surtout jaam loo na ma sax te yemawul xubb mooy koo xam ne mbëggeelam daf koo def muy jaam jaam bu topp lu mu lu ki mu bëgg wax rek loolu lay def noonu la wax yonent bi ne ko sa mbëggeel jaamloo ma neewoon na yonent bi wa cheybun wa tahyaamun wa wajjun wa lawatun ala gayri mahbubi tuaddu masaawiya li ma boole yëpp mu ñeyal la ku ko defoon ci keneen ku dul yow rek ñi xas ko ne lu def lu ñaaw la dem ba béjaaw nekk ci marak mbëggeel ak ngëlmaandeem ak njaameeg mbëggeel ak lakk ak xol waaye loolu daal ku ko def ci kudul ki ma sopp mu yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam li nga def lu ñaaw la wate yemani mu jëm ji man ma mujj di murumtu baat yi du leer ndax am na yoo xam ne amut baat am na yoo xam ne ñiy déglu moomuñ murumtu baay yi daf ci am yoo xam ne baatam amut waaye am na na yoo xam ne tim ñépp moomuñ surtout mu jëm ji man alal bari ci jéeri gi waaye wal waa ci jawwu ji waaye yépp nag arumu maa ngi sàkku wisaalan ak jokkoo sama yoon yi sama wëy yi sama ngurumtu yi sama tukki yi ci oto sama tukki yi ci avion yépp yow laay sàkku baay bi siin la jëm waaye teewaay bi yonent bi teew ci moom mu ngi mel ni ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la jëm te ci moom la jëm ndax ci mission am la jëm ndax lam ko waxoon alayka salaatullahi wa salaamuhu audu ila shughli wa maa ngi may dellu te boobu kat demut de ba muy wax way woowu de boobu nga pari waaye dem na ba gis ko ndax gis na ko demut te am na loo xam ne ñi dem amuñ waaye mu ngi wane bëgg demam bëgg demam di jooy tàggoo ba nga xam ne amagut waaye di dëgërloo ci tàggoo bi lii laayam mooy audu ila shughli wa shughli ya shughlihu maa ngi dem de waaye lu tax may demaat du dara lu may du ma dem di soxlawoo daara lu may li nga soxlawoo bàyyi jóge na fii bàyyiwu fi bitig de bàyyiwut benn xaalis bu ñuy dajalee ay néeg yàlla ay jàngukaay ay defarukaay loolu rek la bàyyi kooku waarisu muhammad yi la dëgg-dëgg aawdu ila shughli wa shughli ya kon moo tax buy dem ba siin ba pare muy wax ne maa ngi sàkku jokkoog yonentu bi sallallahu wa sallam ndax ci tool yi yonentu bi sallallahu wa sallam la nekk ci foofu fa gaadartu awtaani wa ahli wa usrati ajubul fala lam ashku qattu kalaala ma bàyyi samay dëkk bàyyi samay famille bàyyi sama ñoñ di dagg nag àlli tunga yi waaye tukki bi lum gudd gudd masuma tawat ne dama sonn <coughs> masuma tawat ne dama sonn xam nga sonn ne dama sonn dara nekku ci waaye moom du wax ne dama sonn ci liggéeyal yonent bi te ki àndoon ak moom bu la waxoon dana la wax ne sonn na donte yàlla dëgëral na ko ndax xawaaniyal mën naanu bil isfaari walastu muxtaajan ilal iftaari loolu la waxoon yàlla ma dëgëral ci tukki yi bu ma tukkee sax du ma soxlaa dog waaye bu demee ba ci biir daifun alilun shaibun mutaxamisun nga xam ne boobu son sonn bi kaw laxaa léeg-léeg maa nga kawlax lax yonentu bi laa fa neyal foofu laa fa nekkee doon na toog kaw fii di laajte ndax man kaw laa nekk wala fa yonentu laa nekk xayaalun sara am xalla taybata kaw laxu chamamtu ërijal haachimi yi fa ërixu waaye man damay janeer damay gént wala kaw dafa mujj nekkatut kaw lax Madina Munawara fa laa nekk ndax man xet gi may xeeñ ci Medina moom laa xeeñtu fii boppam moo ko xeeñ boppam boppam moo ko xeeñ boppam moo ko xeeñ te kullun wala ilaahu wa barhaamu bi ahmada xayri nnaasi wa min xasadin jaaru alayya wa innani mubarizu aqraani awaana sibaayi hmm? aja wa maa qataahu fi sharqi wal garbi fatfadan ila makkata illa li chammi shadaai ndaa waxoon na ne ñiy dagg àll yi di dem Makka man sama xet gi lañ bëgg a xeñtu sama xet gi moom lañ bëgg a moo tax mu nekk fii nag xetam gi xeeñ ko moom mu ne ndax man nekk ma fii Medina laa nekk yeneen tubee ko tëbb loolu te ootewuñ leneen ootewuñ leneen nag ootewuñ nag leneen day leneen ay jaamu yàlla lañ te bàyyi maqaamam bi gën a rëy mooy jaamu yàlla wa inni abdullahi atlu kitaabahu wa janba rasulillahi dahri uqarrizu fa daanu li taati cey bàyyi baax na waaye topp bàyyi man moo ma gën a neex man damaa déggoon kuy woy wi way bi son bi neex lool parce que boo xamee boo boo miinee way way bi son bi dafay neex mu ne jar naa way ba dee ma ne ko jar naa way ba dee waaye jar naa roy ba dee ndax am na waykat yoo xam ne li ñuy way defuñ shu'araa yattabi'uhumul ghaawuun alam tara annahum fi kulli waadin yahiimuun wa annahum yaquluuna maa laa yaf'aluun illal laziina aamanuu wa 'amilus saalihaat bi kaw laxaa kon léeg-léeg ci kaw lax aw bi yoofa ma taar yoof yële ci Dakar léeg-léeg bi baarisa kër googu nga xam ne ay faasiq ñu ngi fa ñu tayal waaye xam nga buy wax tayal waxu tayal ci liggéey ndax Paris boo fa eewoo suba tayal da gis mbedd yëpp a ngi fees ñëpp ngi liggéey hmm? waaye tayal ci jaamu yàlla ida qaamu ila salaati qaamu ku saala yurauna annaasa tayal googu lay wax waaye du tayal ñoom seen àddina waaye gis nga ni ci àddina yi mën nañu xëy suba ba ngoon di def ay mouvement waaye dugg ci jumaa ji def julli juróomi rak eh, eh, ñeenti rakk rek dafay nekk problème ci ñu bi Belgique yow man léeg-léeg ca Belgique paa jun ngay neew na foofu su yow man tëjawulan bi qaaxiratin Majaar Qahira abgi hunaka jamala jamal Abdou Nasir ku am chance la ku bàyyi bëgg la li Abdul Malik al Qarmi Abdul Malik bàyyi yaa Balqis nga xam ne bàyyi ñaanal na ko lu bëri te duhut gorante rek a tax mbëggeel géeg dëggu gi moo tax wahab lii wahab Abdul Malik muraadahu bila sababin illa suduru qadaa'i xidma na bàyyi dem na ba génn àddina bàyyi jot mandat boo xam ne ci moom la jógee bàyyi ne xoolal Abdou Malik mu nga sax alaxira ba ba pare ba léegi xidmaam a ngi continuer kooku lay ñaanal ne alxarm kay sang téere biñ moon lu bari alxawm la def xarm alxarm la mooy sang xat jitu mawhinan dikkal naa ko ci digg guddi mawhin mooy digg guddi lu tax arab di tuddee digg guddi mawhin mooy ne guddi gi bu fekkoon ni nit la bee jaaw na wa maa londonul abri ba may ñëwal Abdou Malik duun ne London laa jëmoon jàppal ne London dafa mel ni xayaal la sax maanaam ay gént rek la du xaqiq ca diwaan bu njëkk ba woon xoon na ne wa maa londonan zaatu shumuuxi bawaasixi tu duun ne London la jublu madinatu xayri naasi taybata azamu bilaadi ilaahi alamina wa afxamu foofa moom la gis bi bayruuti an xussina maa ngi bayruut fekk maa ngi jëm Chine bi charqi xaadiman loolu yépp jëm ca siin jëm ca charq waaye lu ma yóbbu ci loolu yépp xaadiman ngir liggéeyal ngir aji liggéeyal rasula ilahi al ngir liggéeyal yonent bi nga xam ne mooy yonent boroom aras kay yàlla mi nga xam ne taala kawe na moom yàlla nga gis jaaruwaay yooyu yépp yoof Caire London Beyrouth Karachi bi haa xallaftu ahla mu ne Karachi nag bàyyi naa fa sama ñoñ cofeel humu nasaru diina nabii fi aala ñooñ dëgg dëgg ñoo dimbale dina yonantu bi ci jëf bàyyi am na waxtaan bu mu defoon ba mu jugee Pakistan waxtaan boobu daf ci wax ne tey jii ci alam islaami yaakaaram ci pakistaan la gën a dëgër waxtaanam boobu mu cay wax loo xam ne waxoon na ko ci diiwaanam yu njëkk yi waaye bii daf ko wax rek ci olof ne mébétoon naa jamono maye ñi toog ci barab rek di jàng waxoon na ci diiwaanam yu njëkk ñi wahal ijtimaau shamsi min shamli min gayri furqatin adallu bi taalimin bi taxliis niyati boofu mu ngi doon mébét di wax naan foog boobu nga xam ne mu ngi doon mébét aj mu doon mébét di mébét ay yëfam bokk na ci mébétam yi waxtu wu nekk mbooloo mi dajee rek ñuy jàng loolu nag moom mën na koo mébét ndax waxtu wu nekk am na lu mu joxe waxtu wu nekk am na lu mu joxe waaye ku lal daar sa bu set di wax te doo te te doo xoolaat man ngaa eh, bëri ay rëcc rëcc waaye pour xamal rek bàyyi fan la teg jàng ak jàngale ndax yu bëri ci mbëggeel rek la ko nit di amee ci ci ci xam-xam la ko nit di amee boo xamee rek bëgg bëri na lu nit ñuy weddi tey dañ ko dañoo jàngut téere yi waaye bu ñu ko jàngoon ci téere yi dañ ko gis ci dund yonent bi sallallahu alayhi wa boo déggee bàyyi mu ne aji arafatin kaana fiha muhammadin wa anzilu ardan kaana fiha wa za bajal maa ngi ñëw arafa bu ma demee arafa damay seet foo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu nekkee arafa foofu la toogoon dégg nga wa amnaytu laa abgi siwal xayfi innani ma innahu mahattu xabibi fihi dahran walam yazal bu ma demee minan damay toog ba ut xayf minan nga xam ne yonent bi fa la nekkoon am na koo xam ne mën na koo dégg léegi ne lii yëpp ay mubaalaga la nangam nangam fekk jàngut xayaati sahabati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam borom shifa dafa nettali abdullahi ibnu omar dañ koo gis muy dawal fasam ba ci benn place muy wëral fas wi di wëral fas wi rek di wëral fas wi ñu ne kon la mu ne xawma lan la waaye yonent bi mas naa tukki sallallahu alayhi wa sallam mas naa ñëw ba agsi fii rek ma gis muy wëral fas wi di wëral fas wi moo tax may wëral sama fas wi bu fekkee bëgg nga yonent bi ba koy topp ci loo xam ne diine forcé wu ci kon xam nga ne li la diine forcé kooku waxi noppi bàyyi bu buggee yonent bi ba ne damay ñëw rek xayf mi nan ndax fii la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon kon dana aj ngir yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko santaane dana julli ngir yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko santaane te doon ko def dana oor ngir yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko santaane doon ko def dana asaka bu ko waree ndax yonent bi sallallahu alayhi moo ko santaane doon ko def dana jàpp ci alquran abd eh, seydna omar mu ne laajal laajal alquran nu sa mbëggeel ci alquran em rek nga xam ne sa mbëggeel ci yàlla foofu la toll waaye ñii bàyyi di tudd fii tudd leen ne ci ay tariqa lañ nekk waaye dafa gis ay jullit yu baax yu am pas-pas di dimbale lislaam noonu la xolam yaatoowoon ci bëgg lislaam qad i'tasamu bil xabli xabli muhammadin gis naa mu ne jàpp nañ ci eh, buum gi muy buum ak bi muy alxuraan mi nga muy sunnatu muhammadin sallallahu alayhi wa kibaaran wa atfaalan nisan wa rijaala seeni mag seeni ndaw seeni jigéen seeni góor ñoom ñépp ñu ngi jàpp ci ci ci am na feneen fu mu doon wax ca boobu ji demagut fii di waaye boobu dafa le ala atasimu bil xabli xabli muhammadin kibaaran wa atfalan nisan wa mashayixa tafuqu rijalan mudlijina qad admanu masiran wa jaabu fatfadan wa sarabiha jàpp leen ci mbuum ak yonent bi salallahu alayhi wa sallam seeni góor nañ ci jàpp seeni jigéen nañ ci jàpp seeni mag nañ ci jàpp seeni ndaw nañ ci jàpp bu ngeen jàppee yonent bi salallahu alayhi wa sallam ni ngeen ko war a jàppee da ngeen raw ñoo xam ne miin nañ yoon wi miin nañ xoole guddi waaye yéen ñi door a commencé yéen leen di raw ndax euh, borom xam-xam yi dañuy wax ne def loo xam ne lu tuuti luy sunna moo gën nga def lu bëri loo xam ne nii amut sukkandikuwaay ci li jógee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi daari ulumi diini adraktu nuzhati daar naa ci daaru ulumi diini bi nga xam ne nii euh, moom euh, Seyd Chafi moo ko moo ko mooy borom moo ko sos dégg nga doxantu naa fa wéttaliku naa fa waqat sayyadat majdan daar bi lay wax kër googu muy maanaam kër xam-xam boobu nga xam ne ku ñuy wax chefie moo ko sos mu ne yëkkati na yëkkati na teranga boo xam ne nii kenn mënu koo tudd li markazi in aamil ilaahi tashawufi ba tey nga xam ne inaamul ila inaamul ila alxaan nga xam ne ba tey mu ngi tudd markaz boobu nga xam ne am na ko ba tey ne faqat shaada majdan is ataaxa majaala yëkkati ne teraanga ndax maye na yoon maye na yoon pour tasaare xam-xam maye na yoon pour jàngale lislaam maye na yoon pour yar ni ñi ci yoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bilaa hoora bil hindil qadimi imaaratun bila laahoor Oustaz Braham Diop mi andoon tukki bi nee na bàyyi demut laahoor xanaa avion moo fa jaar rek mu teewlu ko masiri ilal mawla waaye sama dox ba tey yépp maa ngi jëm ci yàlla tabaraka wa taala la ibrahima waxoon inni zahibun ila rabbi sayadini te xam nañ ne Sham la jëmoon te xam nañ ne yàlla nekkut Sham walis feneen waaye ba yoon wi ba ko yàlla taxee jug moo tax ci yàlla la jëm wa jëlla jalaala li Hong Kong min Bangkok jaa xadimukum jaar na Hong Kong jëm Bangkok di nga sa xadim bi yuwaali laka al asfara mu ngi lay toftaleel di nga lënkaleel ay tuggi ay tukki wa huwa te moom ataala guddal na ci tukki bi bi faarigi sabrin qad ata mutatafilan waaye mu ngi ñëw ci koo xam ne muñ na ba mu yem jeex waaye mu ngi ñëw di nekk kuy dunguru koo xam ne nii dafay dunguru ci taabal yonent bi sallallahu waaye waxoon na moom ne ila xayri xayri lxalqi lan atamallaqa bàyyi nee na ku dul yonentu nag sallallahu alayhi wa sallam duma la dunguru te saaxara xaqiq raja abdin ra'aaka manaala ngella dëggalal yaakaari jaam bi nga xam ne gis na la ngay wéeruwaayam fa fi kulli xayin qad xabatta bi nicmatin bayti maanaam mu bàyyi bëgg la indi na ko ay yoon fa fi kulli xayin qad xabatta bi nicmatin wa inni ka shaasin qad arumu nawaala wa fi kulli xayin qad xabatta bi nicmatin fa in hmm? ila kulli aqsa nnaasi juuduka yutraxu bële moom waxu ko këlee ko wax fi kulli xayin qad xabatta bi nicmatin xoqali chaasim min jadaaka zanubu alqamat faxlu moo ko waxoon waaye ba bàyyi xoolee wax ji ne waa ji daf ne buur bi ma gàdd gu nekk may nga leen may gu bëri sama mbokk mii xeeyoo na nga may ko baag baagab gis mooy baag bu fees ak ndox may ko daal may gu bëri ci sa may googu bàyyi ne bayti bii daal ku ko wax ci kudul yonent bi li nga wax du dëgg واذكروا بيتا قاله الفحل مادحا ومسني سوى خير الأنام كذوب maa ngi wax bayti boo xam ne alkamat faxlu moo ko waxoon di tagg keneen ku dul yonent bi bàyyi na ku ko wax ku dul yonent bi li nga wax amut moo tax mu jël genn wàll bayti bi fa fi kulli xayin qad xabatta bi nicmatin xabt mooy may gu bari mu ngi mel ni nga dóor sa euh, nga dóor euh, xobi garab yi muy wàcc xam nga doo xam ñaataay wàcc dafay bari kuy mayee may goo xam ne doo xam ñaata la bokk te compter ko ba pare door a xam waaw million sax bëri baax na lool waaye compter ko ba pare door koo maye waaye tëpp rek ni maye nii xat xabat bi ne amatin loolu mooy xabt ila kulli xayin te gàdd yépp wala bu la neexee waxal ne képp kuy dund xat bësal tamana la képp kuy dund rek may nga ko waaye mën nga wax ne xayi ndax xayi yu du dund yi ñu ngi fa alawtul bihaara mu ngi mellal tukkeem yi tukki naa kawe naa géej yi du si géej yi ci kaw avion yi wa inna ni alawtul qura kawe naa dëkk yi kawe naa dëkk njën yi kawe naa capital yi wal mud na balhal jibaala kawe naa sax doj yi lii yëpp nag coono bi yëpp aruumu ridal baari lii yëpp maa ngi sàkku ngërmaande yàlla bu ma amee ngërmaande yàlla lu may ci lu ma koy defee li nusrati diinihi pour ma mën a dimbale diineem ji ndax yàlla bu la gërëmee boo buggee mu bëgg boo waxee mu wax boo am boo buggee mu amal mu amal maa ngi sàkku ngërëmaane yàlla ci lii bu la yàlla gërëmee rek nangul la maa ngi sàkku ngërmaane yàlla maa ngi sàkku ngërmaane yàlla ci dimbale diineem maa ngi sàkku ngërmaane yàlla it ngir dimbale diineem maa ngi wan nag maas gu bees gi misaal moo xam ne ci lañ war a dund gis nga moo tax Cheikh Ibrahima radiallahu anhu doy na misaal wan nañu misaal boo xam ne nii ba àddina jafee sax boo ci nekkee mën ngaa dund ak xeeti àddina yépp waaye démb rek maa ngi gis ci fees bi benn jumaa boo xam ne rek ci Maroc yi ñeneen dañ doon gàmmu am ñoo xam ne ñoom dañoo ñëw di tere gàmmu ba ñuy xeex ci loolu xam nga loolu loolu àddina bu tukki la ñu ngi te kooku kuy dem di aaya nag dara dugalu ko ci lu may gëm na ne moom yàlla lay liggéeyal yonent bi lay liggéeyal te liñ tuddee mutamar siira du ko aaye liñ tuddee ay fa si xawla siira du ko aaye waaye buñ ne mawlid daal mu aaye ko ngir ay mag ñu baax ko doon def waroon naa fexe ba xam mag ñu baax ñoo ñan lañ bàyyi ne daifun alilun ku lot ku mooy ku feebar shaaibun aji béjjaaw waaye mutahammisun ku ànd ak cawartaane li yansura diinan ngir dimbale diine ji nag laa yuridu xitaala waaye buggut a xeex bugg koo dimbalee ci xeex buggut a xeex loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne laa tatamannaw liqaa al aduwi fasalullah aafiya fa ida laqitumum fasbutu dégg nga kutiba aleykum alqitaalu wa huwa kurhun lakum yàllaa ko wax yàllaa bind ci yéen xeex waaye da ngeen koo sib sib googu moom la bàyyi di waxaat nii waaye waxut ne bëgguta taxaw pour xeexal lislaam bu ko jaree waaye ooteem bi ba mu demee ba nga xam ne toll na ci àddina foo xam ne oote ci këlima mën na cee doxal loo xam ne nii àddina yépp wi si oote bi <coughs> ay junney junney junney junne dugg ci lislaam ci loxoom te xuloowut te xeexut te lépp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee xam nga ne ci jotaayam boobu ci gaana nga xam ne wax nañ ne ñeenti junney nit dugg nañ ci lislaam te loolu lim rek la am nañu wax bari juróom-ñetti junney nit wa qultu laa ilaha illa allahu muhammadun arsalahu lilahu wa qaalaha alkufaaru walmajuusu walumara taabati nufus ma wax laa ilaha illa allah muhammad yàllaa ko yónni mbooloo mi yépp wax ko seeni buur yëg seeni baadoolo yi ñépp wax ko man nag suma xol sedd ndax loolu rek mooy seddal xolam mooy fexe ba oo nit ñi ñi tegu ci yoon yoon ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax ba mu ne laa uridu xitaala nga ne ko ndax dangaa bëgg a wax ne yenentu bi xeexut mu ne la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li anna nabiya alhaashimi dahra ma gaza songut ngir songu waaye balaa sadda udwaanan wa waxtu wu nekk noon yoo xam ne nii ñu ngi waaj a ñëw ci ñoom ak réer goo xam ne nii mu ngi waaja taxaw moom la doon xeex ak taqaadafahu l shartan sharqan wa maghriban loolu melal melal bu rafet la mu ne jaw yaa ngi koy paasante ci sow ak ci penku yubinul huda muy leeral njub di ko leeral feelan ci jëf wa xaalan ci wax wa xaalan ak ci xaal njub gi mu doon leeral du ne daf ko doon wax rek mu neex bu ko waxee boo demee gëstu ko danga nga fekk ne li mu doon wax moom lay dund moom lay jëf te loolu bokk na ci li gënoon a dimbalee daawa islaami bi ñi nga xam ne dañ koy oote ñu fekk ne li ñu oote moom lañuy ñuy dund waaye taqaadafawul ajwaa xam nga dëkk yëpp mu tudd ku ko wax kay jaww ji paasante nañ ko dafa mel ni dafay wax li abu tama waxoon ka anna bihi dirnan ila kulli janibin min al ardi aw shawqan ila kulli janibin bi kantoona jënbal xarmi saadin tawassuli ci kantoon ca wàlli saad mooy fi ñu def xabru saad ndax xabru saad lañ ci jublu wala maqaamu saad la wala ab abi waqaas bi ñu koy wax waaye bàyyi bañ ne ko fii saad la moom moo gën a xam ndax wax na ne saad abi waqaas moom lañ mujjee suul ci Medina wax na ko ci ay jàngaleem waaye bañ tuddee saad rek moom mu ngi def tawassul ci moom di def tawassul ci ki nga xam ne sax mooy njiitam mu yonent yàlla Muhammad mu alayhi wa sallam mu ne ci barkeeg njiitam boobu raddal juyusha wa saala delloo na lële xare yi ndax boo xamee ne saad song na lëli xare yi delloo leen boo xamee ne moom moom moo moom moo ubbi madain nga xam ne def na lu bëri ci ubbey lislaam yi ramaahum bi amri lhaashimi wa innahu adaaqa aljumua almuctadina wa baala gazwat zaati salaasil bi nga xamee ne boobu waa fursi yi bañoon a daw dañoo takkante seen bopp sax ngir bañ a daw waaye terewul ne jeysu yonent bi sallallahu leen gañe mosal nañ leen ak xalkare alayka salaatullahi ya saadu innahu maa ngi lay nuyu yow saad innahu ataaka xifaafun ñu xoyof ñu am na ay mars ay ay wolis yu oyof ñoo ñëw ay poos yu oyof ñoo ñëw waaye na dañ dellu si xaalan di diis daañ dellu fekk seen poos a ngi fees te bàyyi ba muy dem foofu foofa jëlewu fa xaalis waaye ba mu ñëwee fii ci Dakar ci tukki boobu fekk na fa xaalis bu bëri boo xam ne wax nañ ne mat na 30 millions nga xam ne tawassul bi mu def ci saad ne ataaka xifaafun yarjiuna siqaala ñi ñë ñëwal seen poos yi dara nekku fa waaye nag bëgg nañ buñ delloo seen poos yi fees li pikiina min kantoona bi siini naa iyan dem naa pikiin kantoon ci siin may aji sori waxoon na foofu ba mu jugee euh, ci tukkeem boobu ba mu taxawee foofu nee na Cheikh Umar de tukki na waaye bu ñëwoon fii dana xam ne man tim tukki na wa kawlaxu tad'u waaye sori naa foofu waaye kawlax ak may oo qad abanta rixaala moo tax kawlax am na chance yàlla na kawlax kam chance boobu te chance yi kawlax mooy chance yi Sénégal la tamassak bi azyali nabi mutaabian bàyyi na jàppal ci càmbargaay yonent bi jàppal ci moom jàppal ci ñuy jàpp ci moom jàppal ci calala gi lay àggale ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mutaabi an ngay aji topp mazahibahu ay yoonam wal muhdathaatu yuñ sos yi falaa laa déet bu ko ci boole bu ko topp fa tuxnika an dusturi kurzun wa xaalidin wax nañ ne kurzun benn euh, lord bu Angleterre la xaalid bu xam ne Bakdaas bu waa Suuriya wala wala kurzu baati arab kurzu walla xaalit ay xaalit dégg nga wa tuxnika an juunin dégg nga xam ne ba tey euh, ministre américain la woon yarumu mu xaala ji sàkk lu lu jomb fama napoléonun bàyyi na la waxuma la napoléon bonaparte Lénine Karl ndax li koy indi ci lii boobu jaw ji nga xam ne ca la dundoon seen gi nga xam ne fala dem nga xam ne boobu ay communiste lañ boobu liñ gëm mooy li fi Lénine indi li Karl Marx indi Lénine indi ko dégg loolu lañ gëm ne moom mooy moom mooy sauver àddina dégg nga boobu Mao moo nekk foofu mais ci lii la doon dund jaww jooju moo indil Baay mu indi ci xasidaam li nga xam ne moom mooy jaww ji mu doon dund ànd ak ne loolu yëpp Chouine bi nga xam ne nii moom mooy raisul wuzara moom mooy premier ministre ci ci ci ci gouvernement Chine bi Baye daje na ak moom Baye bu ngi lay wax ne nag ñii ñëpp nag kenn du ci ku kuñ wenn wax yi li anka bàyyil walis la xabaalan ak ndof bàyyil loolu ndax bu fekkee ne ay boromi xam-xam lañ tim léegi léeg ñi àgg ci maanaam tariq masdud boo xam ne duñ fa am benn xal Karl Marx xam nga lim doon tënëbbu lim doon wax mooy ne ci jamono fi ñu doon toll fi mu ne nii ñoom rek ñoo fi doon des communistes yi ñoo doon des loolu la diggoon àddina capitalisme jeex na jeex mais loolu amul axe bi moom moo am capitalisme moom moo de moom moo fi nekk fi mu ne nii ah donte ñoom dañoo beesal seen bopp yim jàppoon ne noonu rek lañu waroon a doxee te noonu ñuy doxee buñ koy doxee mooy ne ñi néew ji doole ñi liggéeykat yi danañ ma fippu ñoom ñooy mujj jël yëf yi àddina bi yëpp ay communiste la ñuy nekk la waxoon dara amu ci moo tax Baye ba muy xam ne ñii li ñuy wax dara amu ci du tey mais jamono yooju am na jamono fii ñun boobu génn guñ demaguñ xaayara ku doon jàng ci lii lycée yi ba commencé jàng philosophie rek danga nga dof benn diit foo leen fekk ñu ngi naan pour na Marx nee na dégg nga waaw max nee na foog ne moom ñooñu la bàyyi doon waxal xalli an ka xabaala bàyyi ndox mi am na ay xalaat yu mu wax ci sociologie goo xam ne ba léegi àddina baa ngi ko respecté mais li mu waxoon ci philosophie yëpp kenn gisu ko yëpp dafa dem rek nekk ay kii fi mu foogoon ne bu buñ ci àggee ñoom ñooy doon àddina ñoom doon wuñ dara ñoom foogoon ne ñoom ñooñu la ñuy doon ñoom ñoo leen doon te lim jàppoon ne àddina tim taxawaaye àddina xeexi àddina du aju lu may ci xeex ñi nga xam ne nii ñooy tabaqa bi nga xam ne ñoo gën a suufi ak bi gën a kawe loolu tim taarix sax wanewul loolu taarix li mu wane mooy xeexi àddina yi ba léegi mu ngi ci mu ngi aju ci affaire yi waaso mu ngi aju ci affaire yi diine mais moom bi mu jàppoon ne àddina xeexam sax ci lay nekk loolu sax àddina nekku ci kooku taxuñu woon a jóg moo tax kitaabu min allahi jalili jalaaluhu bàyyi na bàyyil ñooñu boo bàyyee ñooñu ku may jàpp mu ne la jàppal ci téere bi nga ne ci yàlla la jógee muy alquran laa yatihi l-baatilu min bayni yadayhi wala min xalfi téere boobu nga xam ne bu jiitu la wa baaqin dafay des mojise yonent yëpp dafa dem ànd ak ñoom mojise yonent yàlla Muhammad sallallahu wa sallam di des bët bu set muy gën a bees laa yaxaafu zawaala te du ragalut dëñ te laahul fatal mamuunu jàmbaar ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jàng bu la neexee nga ne jàmbaar bu la neexee nga ne fata mooy sang ni nga ba mu koy jàng boobu boobu boobu mu ngi toll ci diggante ndaw dégg nga ma amuunu jaxran wa yaqdatan kenn ñemewta ikkati baati dëgg moomu mi ngi koy ooyee mamuun ndax ñi ko weddi ci seen bopp ooyee nañ koy mamuun ba ñuy wax ne xajarul aswad ku koy nuñ koy fu koy teg ñi werante ci loolu bañ seen yonent bi dañ ne gërëm nañ amin mu nekk suñu atti ñoo ko tuddee mamuun ndax bu jayri waxoon na euh, kaab waxoon na mbokka mi bu jayr ala abliga anni bu jayran risalatan wa hallaka fi ma qultu wayxaka hallaka saqaaka abu bakrin bi kasin rawiyatin fa anhalaka almamuunu minha wa allaka aboubacar moo la ci moo la ci nandal mamuun ñëw sungali si la euh, sungali mooy naan bi nga xam ne mooy ñaareel te boobu ba muy wax ki mu doon wax ak noon la waaye moo tuddee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foofu mamuun saqaaka abu bakrin bi kasin rawiyatin fa anhalaka almamuunu minha wa allaka kon ñoom nangu woon nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku óor la moo tax li ko yàlla wax fa innahum laa yukazibuunaka walakin alzalimina bi ayati illahi yajhadun weddiwuñ la kaawteefi yàlla yi la ñuy weddi fa daa baada hada kulla qiila wa qaala bàyyil gannaaw boo àggee ci alquran ji nga xam ne yàllaa ko jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy yonent bi boo buggee gis yonent bi mooy alquran boo buggee gis alquran mooy yonent bi sayyidatuna Aïcha laaj nañ ko mu mellal yonent bi naka la meloon mu ne kaana xuluquhu alquran lu alquran digle lay def lu alquran tere moom lay bàyyi fa ya rabbi qarrir lil uyuna bi an arasi walxaqi min zal qarni zala wa zala bàyyi ne yàlla yàlla nga teeyal suma yàlla nga seddal sama bët arab mooy wax bët bu sedd bu kontaanee dafay wax ne sama bët dafa sedd ngir bu ma gis ci xarn bi lu may dëgg rek lu may dëgg rek ne dëñ na loolu may bëgg-bëggam bu loolu dañee wa yalu liwaul haachimi yi darapaay darapo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kawe fekk daanu na liwa xay yi darapo maandu hadi ak bew wa tuxyaani ak bew wa huwa tam moom darapo yi taala kawe ilayka jëm ci yow rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que ilayka mooy ci yow rek wala arju siwaak te yaakaaruma keneen nag ku dul yow wa in yakun buy nekk siwaaka ku dul yow mën naa lii fekkee daal man ku dul yow mooy sama fay man mooy sama may maa qabiltu mënaa la wa maa liya gayrul mustafa al badri waxoon na ko ca commencement ba bàyyi màggee ndaw moo tax soxlaay commencement bi mooy soxlaay mujj gi màggee ndaw moo tax soxlaay commencement bi mooy soxlaay mag bi mooy mujj gi qaddaral Mustafa maarumtu min sagari wal yowma chi bi baada aadai wa qaddaral Mustafa maarumtu min sagari wal yowma qad shaaba fawdi sayid al arabi ba ma li ma doon sàkku ba ma nekkee ndaw ba léegi dem naa ba béjjaaw xam nga ko moo tax ci commencement ba tam la waxoon ne fa maa liya xayrul mustafa al badri marabu aw ma benn soxla ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa fii jaaizaati al xayri maa liya marxabu neexal yi ñeneen ñi di maye ku dul yonent man daan neexal yooyu soxla uma waaye yonent bi may na ko ba mu sant yàlla afaada ilayya minhu xaqan wa innahu afaada li xayri min fi yudxi bàyyi yaa yonent bee ma may may gu jugee ci moom dëgg-dëgg ku dul man ma ci li ma ku dul man mu may la ci li ma desal mooy ma yow la ma boole boo xamee yow la ma boole boo xamul yow la ma boole waaye nee na yonentu bu fekkee ku dul yow mooy sama cër daal man bëggatuma aleyka salaatullahi duma salaamuhu ajirni wa ashaabi araka simala waaye ne yonent bi yàlla nga ma làq yàgg samay mag samay samay àndandoor ànd ak bàyyi nag óor na ànd ak moom óor na te ànd ak moom gi li tax muy mucc mooy bañ a soppi ndax xadis ju lu bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne dafa ci xawdam mu gis ay saxaabaam yuy ñëw mu xàmmee leen ne ñii ay samay saxaaba lañ ñi ne ko xamoo luñ soppi sa gannaaw mu ne suxkan suxkan nañ dem fële tekkiwut ne duñ duggaat jànn de waaye privilège boobu keroog ñoom bokkuñ ci te dara mayu leen ko lu may liñ soppi sa gannaaw moo tax lépp luy bees rek nay sofu ci li baax li fi newoon mbir buy màgg faw mu am yu bees waaye yu bees man di sofu waxtu wu nekk ci cosaan buy sofu ci cosaan bi rek mook cosaan bee bokk fu ñu jëm aleyka salaatullahi wa salaamuhu wa tashmalu ashaaba nabiyi wa ala maa ngi julli ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam gannaaw bu mu ko waxee ne ko gis naa la ngay wéeruwaay te bàyyam jee ko ko waxoon abyadu istasqal xamaamu bi wajhihi simaalil yataama asmatun lil aramili bu taaliba ko waxoon sama doom bi sang la boo xam ne dana ñaan taw ci xarxanam bi yàlla tawal ñu ki nga xam ne mooy wéeruwaay jirim yi mooy wéeruwaay ñi nga xam ne tiim dañuy fëggule fëggule mooy ñi nga xam ne liñ amoon ci seen saak ba la ca mujjoon génnee nañ ko boo amee saako dugub ngay génnee mu dem ba nga xam ne li ci des nag da nga koy fëgg nii loolu lañ tuddee fëggule yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baayam jooju newoon na ko gis naa la ngay wéeru wéeruwaaye ñooñu baayam jooju lam waxoon yàlla dëggal na ko moom la baay di waxaat nii araka simala maa ngi julli ci yow di la nuyu nuyoo goo xam ne ak julli goo xam ne dafay làmboo say saxaaba làngoo say aalul bayti bu taxutoon ak bayti bi aal lay jiital ci saxaaba yi waaye bayti bi moo tax wa tashmalu asxaaba nabii wa ala moom la ndax yonent bi sax def na loolu sallallahu alayhi wa sallam ci ñaan waaw ñuy jox euh, xasida bi moom jeex na waaye gàmmu moom du jeex gàmmu fii ba fii fii ba déwén la gàmmu bët bu set gàmmu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam waaye yàlla boole ñoo ay jàngalekat yonent bi sallallahu alayhi wa yi ñoo wax ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yataxawaluna bilmawidati maxaafata saamati maxaafata an yonent bi daf ñi doon doggantal ci waade ngir bañ ngir bañ ñi toqe waaye bu taxutoon ak loolu xam nga bàyyi ni muy dundee yonent bi ak ni mu koy yee ni ko noon bët bu set gàmmu la waaye yërëm jaam yi ngir bañ ñi toqe moo waral loolu yàlla nañ yàlla nangul yàlla lépp luy bees rek comme ni ñu koy waxee na na sofu ci li paase woon ci lu baax li nekkoon mu ngi nii mbaar mu bees lañ nekk yàqu dara ci liñ doon def dana ji dimbale ci taw lu mel noonu waa wàññiwul dara tëj diit mën naa me mën naa mën naa mekk nekk ci noonu ñuy beesal waaye buñ soppi allahuma a ala sayyidina muhammadin